Ablaye Gaye daf ñu xamal ne ministre bi dafa dem démb ci guddi France moom moo ñu recevoir mais xamal nañu ne comme ni ko sëriñ bi waxee moom nangu na ko balaa la trente dixième mois liggéey bi dañ koy tàmbali te ñoom dinañ ko jëmmal ci ay kayit ñoom état bi dinañ ñu accompagner dinañ ànd ak ñun képp kuñ fa joxoon lu ñu naan boo dinañ ko teggi annulé ko delloo Malika suufam te ñun looloo ñu taxoon a ñëw borom tool tim dinañ leen delloo seen suuf ba pare semaine bii di ñëw dinañ dajeek mairie bu Malika dañ fa joxe woon ay booy ay boo depuis 2014 dafa am ñu fi attribué woon ay baux te foofu ñoom dañ ne forêt classée la te forêt classée bi Malika moo ko jiitu Malika mu ngi fa nekk depuis 1914 waaw ci ndigalu Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam ñoom nag tey li ñu leen wax mooy que ñoom état bu Sénégal dañu am luñu ñu war a delloo Malika